aimé leen partagé live bi ñu jot ko seen notification am solo bi nga xamante ne noonu lañ ko waxtaanee jamono ji daal di koy doora ci discours bi nga xamante ne njiitu réew mi ko amal bu 21 heures jotee donc mën ngeen ne moo di 2STV bi donc bu discours bi tàmbali rek dañuy daal di arrêté li nga xamante ne moo di émission bi daal di leen koy tegle Moustapha ñu gis ne jamono ji réew bu Sénégal sujet yu bëri bëri ñu am na bu ci mel ni la nga xamante ne moo xew barkel maanaam fleur bi nga xamante ne moo daal di sàq ñëw daal li nga xamante ne moo jamono ji nekk na actualité ba xam te ne njortu nañ ne réew mi la muy waxtaanee mbir moomu la dina ci bokk. waaw loolu nga wax noonu kii joxe junj bi mooy Madiambal Diagne Madiambal moo joxe junj boobu waaye nag euh, comme waxi ma Madiambal la. dañ ciy def ndànk rek ba xam euh, ci kanam tuuti euh, fu wànnati di mu jëkk ay gëtam mhm. comme lañ naan paaka kenn du ko jiitu ci mbara mhm. loolu mooy wax ji léegi nag bu ñu taaxirloo tuuti rek du ñàkk ñu xam euh, le président Bassirou Diomaye fay fan la nar a euh, jëmale ak nit ñi mais li am ba des rek mooy il faut ñu rappeler ne euh, élection législative yi dana door campagne autant campagne électorale bi autant pour moi dana door. Uh-huh. suba bu mu minuy jote tey bu mu minuy jotee donc loolu. yaa ngi gis ne am na ñoo xamante ne candidat yi tey jii. Uh-huh. ku ci mel ni Ousmane Sonko ak yeneen candidat dem nañu nañ RTS. defe ji seen enregistrement donc loolu. comme niñ ko baaxoo di defee euh, noonu lañ ko defee cette fois si léegi nag euh, lu jëm ci kàddu gi nga xamante ne moom la président war a jël euh, man duma ma def comme Madiambal damay tey rek xaar tuuti parce que tamit comme quelques minutes moo dox suñu diggante ak loolu te bu soobee yàlla bu vingt deux vingt une heure. Uh-huh. desee quelques simili rek. Uh-huh. dinañu ñëw dëgtal leen fa li nga xam ne moom la président dox ngeen suivre ko en direct. Uh-huh. waaye bu ñu ko suivre en direct Mhm. ami def ko comme ni mu ko daan defee séddalewaat kàddu gi ñu daal koy commenté voilà noonu la demee Moustapha parce que ci li nga xamante ne sax moo di déclaration dañ cee bind ne sujet yi nga xamante ne moo nekk sujet d' actualité jamono ji moom la njiitu réew mi war a waxtaanee Amina mu mel ni nañ koy xaaree jamono ji sujet yi bari na gis nañu li nga xamante ne moo xew barke également def na tolee mu nekk jafe-jafe bi nga xamante bu métti ñoom waa Bakel ak li ko wër ñu ngi koy donc buñ ne njiitu réew mi dina waxtaan ci li nga xamante ne moo di sujet d'actualité ñu njortu ne la muy waxtaanee mbir moomu lee dina ci waaye itam li nga xamante ne moo di campagne électorale yi ñuy dëgmal ami beaucoup se pose la question à savoir lan la war a waxtaanee tey ak ci yan sujet ak yan ponk la na a Euh, donte sax nee na ci ay sujet d'actualité la nar a ñëw ak ñun euh, bu ñu xamante ni moo di actualité bi lu ñu mën a jàpp ni ci la mën a def ab sortie euh, bokk na si campagne yi ñu mën a jublu ni ki suba campagne u législative yi euh, ngir rek euh, jëm ci li nga xamante ni moom moo di élection yooyee waaye itam euh, gis nañu ni foofee ca Bakel li fa xewoon déjà loolu am na lu mu ci yëkkati woon mais li ñu jàpp ni daal dina ci gën a daal di ñëw moom moo di bile campagne ndaxte nag dafay baax mu daal di ci lancé ab message daal di yëgal askan bi nan la bëgg mbir mi daal di koy dérouler et on espère bien que ni bis bu bu ci yëkkatee ay kàddu rek dinañ ci gën am ay leeral ñëwaat sur le plateau daal di ciy def ab commentaire am si noonu lay demee Amina donc yaakaar naa ne bu yàggul dara dinañu leen dégtal li nga xamante ne la njiitu réew mi eh, nar a wax wala sax discours bi nga xamante ne nar na jàkkaarloo ak askanu Sénégal daal di koy waxtaane ak ñoom mbir moom sax la ñu wax mooy sujet d'actualité lañ nar a waxtaane actualité jamono ji nag bëri na lu ci mel ni li nga xamante ne eh, moo xew ca baat waaye itam élection législative yi nga xamante ne anticipé yu ñuy waajal le 17 novembre bi ñu daal di dëgmal te campagne bi sax daanaka eh, door na tey jii ci zéro heure donc am na ci ay candidats yoo xam ne sax dem nañ ba def li nga xamante ne moo di seen ay enregistrement moo tax ñu njortu ne rek mbir moomulee da ci daal di bokk waaye ponk bi nga xam ne itam noonu lañ ko waxtaanee jamono ji euh, Moustapha comme discours bi ñëwagul muy mbirum ki nga xamante ne euh, moo di Samba Ndiaye mu ñu demee euh, PCA HLM bi nga xamante ne daanaka jur na tolee bu mag a mag depuis lors nit ñi ñu ngi ci àddu sympathisant ak militant parce que itam gis nañ ay ñoo xamante ne cadre Pastef la ñu bokk daal dinañu wane daal nanguwuñ li nga xamante ne mooy di boobu la décision waaye tamit Ousmane Sonko di Ilmaana Diourine également gis nañ ni am na ab euh, mbir boo xam te ne déclaration bu mu ci def ne daal ki nga xamante ne moo di sàmm Ndiaye Euh, euh, proposition alliée la maanaam dafa nekk euh, koo xamante ne bokk ci parti Pastef mais dafa ñëw intégré li nga xamante ne moo di ci parti bi donc mu mel ni ñoom boo leen déggee bu baax a baax dañu daal di dégager li nga xamante ne moo di seen ay responsabilité mel na ni mbiru mbiru Samba Ndiaye moom daal dafa leen rëccoon te dañu jël ay décision ci lu mu gën a garaat daar ci daardaa bi kon daal mu mel ni njottu nañ ne boo sàgganul moom Samba Ndiaye moom dinañ ko daal di dàq bu démissionné wul. loolu mooy Amina li nga xam ne mën nañ koo tënkee ci texte bi nga xamante ne Ousmane Sonko euh, parce que bi muy bind dafa dooree ne dégg naa leen j'accuse réception de vos indignations mu ne dégg naa leen la dooree maanaam dégg naa seen tawat dégg naa seen euh, li nga xam ne moom ngeen doon jootu ci réseau sociaux yi waaye mu teg ci ne du ñu mës a fàtte sacrifice yi nga xamante ne dund nañ ko ci wiir partie bi waaye tamit du ñu mës a pàtte jafe-jafe yi nga xamante ne jaar nañ ci ba yegsi fii mu daal di fàttali tamit ñi nga xamante ne ñoo mën a liggéey ak parti bi ak ñi mënul liggéey ak parti bi mu ne parti bi mën naa liggéey ak képp koo xamante ne say loxo set na nga bokk ñoom gis-gis mën ngaa ànd ak ñoom liggéey waaye mënul liggéey ak képp koo xamante ne mës ngaa am benn comportement bu zélé maanaam comportement bu ëpp wala ay rapport wala yu ni mel daal di jàmbaaraamu tuuma ñooñu parti bi mënul liggéey ak ñoom kon définir na ñi nga xamante ne ñoom la parti mën a liggéeyal ak ñi mënu liggéeyal ak parti bi loolu mooy li jiitu beneen mbir bi ci dellu siwaat euh, moom Ousmane Sonko ñëwaat na ci mu xam le ne tamit euh, ñëpp ki nga xam ne moo di Samba Ndiaye euh, dañ ko proposé proposition alliée la maanaam ab allié moo ko proposé maintenant bu ne proposition alliée ñëpp xam nañ ne Samba Ndiaye fi mu jaar moo di Jomaay président Jomaay président boobu mu jaar nag fi ñu toll nii man je pense que ñoom ñoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a exposé wu par rapport ak jafe-jafe bi nga xamante ne am na soqe ko ci tabb bi nga xam ne tabb nañ ko Samba Ndiaye parce que ñu bëri dañ jàpp ne vigilance bi nga xam ne Diomaye président am waroon na ko war war na ko gën a mën a xoolaat maanaam ay buntam mu xool ñan la koy tijjal ak ñan la koy tëjal naka lañ mën a def ba Diomaye président doon kuréel boo xamante ne du doon dawlaaxu pour yenn politique yoo xamante ne daanaka am na ci askan wi ñu bëri si ñoom ñoo xam ne dañ leen a wàccu donc loolu euh, yoo xamante ne Euh, Ousmane Sonko def na ko waaye commentaire bi ñu ci mën a tegaat mooy. xam nga lii dafay wane ne tey jii euh, moom sax wax na ko ne dafay wane exigence bi nga xamante ne moom euh, askanu Sénégal wala parti militant bi moom lañ am jëmale ko ci Ousmane Sonko parce que jëmale ko ci parti bi autant pour moi parce que amoon na nu ñu doon taxawee dafay mel ni dañ leen a bàyyi ñi def lépp lu leen neex waaye boo gisee taxawaay bi ñu am. daf leen di wan ne lépp loo leen def wala loo leen nar def ñun dañ ciy bàyyi xel. important. ñu toll foo xamante ne suñu niveau de veille wala niveau de vigilance jëm ci démocratie bi wala ci ñi nga xam ne ñoom lañ tab mu dem ba nga xamante ne képp ku ñu tabb dañ ciy am droit de regard loolu je pense que c'est très important. Mm. Euh, kon tey jii boo gisee avant Ousmane Sonko y avait Fadilou Keita bi nga xam ne moom mooy directeur de campagne bi Ousmane Sonko. Uh-huh. moom moo njëkk a génn def benn communication benn texte. wax ne dégg nañ leen te xam leen ne lii nañ ci taxaw du yàgg. donc yàggul dara Ousmane ko daal di ñëwaat. kon ce qui est sûr et certain que mooy départu Samba Ndiaye une question d'heure ou bien de jour. c'est inévitable départ ah oui c'est inévitable bu baax a baax ci li nga xamante ne itam euh, moo di musique euh, euh, ay activités ñu ci jégaluwaat bu a baax Amina li nga xamante ne également moo di na yi nga xam ne taxaw nañ daal temm que démission Samba Ndiaye boobu mu am ci lu mu gën a gaaw mais mu mel ni Ousmane Sonko mi nga xamante ne moo di Elimane Diouf mi war na leen carrément que ñun décision boobule daanaka mën na leen mën naa ne daf leen leen a rëcc parce que nga xamante ne moo di Samba Ndiaye allié boo xamante ne dañ leen koo proposé ñu def ko li nga xamante ne moo di PCA bu HLM mais itam fàttali ne ne ñoom ñi nga xamante ne ñoo di militant Ousmane Sonko dañ leen di déglu mais itam bàyyi dinañ bàyyi xel ci li nga xamante ne la ñuy wax à chaque fois ba waral daal mu ne bu yàggulee dina jël ay mesures yu am am solo mu mel daal ñottu nañ ne ki nga xamante ne moo di Samba Ndiaye bu démissionnel xam naa ne bu démissionné wul question d'heure wala question de jour pour ñu daal di koy dàq fa nga xamante ne moo di PCA HLM Euh, presque ah, mën nañu presque unanimité la lañu am waa waa Pastef wala euh, ñenn ci patriotes yi euh, ndax kàddu gi daanaka benn la mooy que ne rek kii nii di sàmba Ndiaye mérité wul poste bi nga xamante ni moom lañ ko jox ñu ci bari ñoo ngi exiger à ce que ñu daal di renoncer à sa nomination wala sax moom ci bopp